gi Anna Boye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna soxna Moreau maa ngi leen di di fay organe de presse bi Rewmi FM Rewmi Télé jërëjëf. Gorgui Anna nga nekk secrétaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe La post bokk ci Pastef euh, foofule ca Rufisque Ouest temps yi nag ñu gis ni foofule ca Poste amaat na ay yëngu-yëngal lan moo waral yëngu-yëngal yooyu la exactement. waaw maa ngi lay gërëm di leen sant si micro bi ngeen ñu euh, euh, permettre ñu wax au nom des travers du groupe La Poste au nom de des Sénégalais si j'ose dire parce que boo déggee yëngu-yëngu amaat foofu rek man en tant que partenaire social en tant que syndicaliste yëngu-yëngu bi bu mujjee mooy bi nga xam ne contractuels yi ak certains travailleurs yi nga xam ne dañu arrêté seen contrat au mois de décembre arrêté nañ ñenn ñi liggéeyatuñu fo ñun en tant que partenaire social en tant que secrétaire général de syndicat d'une organisation syndicale suñu devoir mooy accompagner leen nekkax ñoom xeexal leen waxal leen àndax ñoom si seen doléances yi ñuy posé sur la table des autorités te ñu ngi siy sant yàlla def nañ sitting euh, quelques jours il y a quelques jours euh, devant la direction générale te am nañ seen plan d'action boobu xam ne dinañ leen ci jàppale euh, donc mm-hmm. contractuel yooyu lan la ñuy kaas lan la ñu waa contractuel yooyu dafa tombeex si situation bi entreprise bi di dund moom yow wax nga ko sànq parce que yàgg na problème yi yàgg na fu nekk wax nañ ko teg nañ kay doon la doléance def nañ lu ne ñuy toog di déglu autorités yi ñu jël les les mesures qu'il faut les mesures idoines yi pour sauver l'entreprise te am nañ ne yaakaar que ne autorités yu bees yi ñu tal ci réew mi ak bi ñu tabasi entreprise bi dinañ déglu travailleurs yi dinañ liggéey ak travailleurs yi parce que pour ñu mën a jël les mesures yi nga xam ne parce que entreprise dafa doon loo xam ne beewu sénégalais yëpp la hmm. sénégalais yëpp ko moom ba pare mu fi fi un rôle économique am situation place boo xam ne sur le plan mondial sax organisation mondial la bokk mooy UPT UAP UET boole si tamit sur le plan africain tamit ñu ciy su si sous-région ñu ciy joué rôle bu am importance parce Sénégal fi mu taxaw la fi mu ko sur le plan. postal ñun dañu am njariñ buñ fi développé te loolu autorité il faut ñu taxaw ci sauver entreprise bi par rapport ak euh, emploi yi nga xam ne perte nañ ko lu tax ma ne perte nañ ko parce que depuis le mois de décembre il y a plus de trois cent soixante dix ou trois cent quinze contractuels yi yàgg ci kër gi ñu arrêté leen loolu tamit dafa bokk ci loo xam ne dañ koy xeex dañ koy ñaawlu moom la ñoom ñu def benn sortie plan d'action bi lan la exactement lan la ñu fas yéenee def bu fekkente ne autorités yi euh, réagiruñ waaw autorité même bu ñu réagirul autorité yi ñu ngi au courant te ñun tamit dañuy continuer jàppale leen àndax ñoom ci xeex bi xeex bi xeex bu légitime la parce que des travailleurs qui ont eu à plus de deux contrats beaucoup d'entre eux ont plus de deux contrats de deux ans et le plan légal et juridique certains devraient être embauchés pour réorienter vers d'autres secteurs des télécommunications ou des malheureusement on a vu la situation économie entreprise bi vu la situation bi nga xam ne ñun ñu ngi ko doon jànkoonteel di xeex ñun en tant que partenaire surtout en tant que travailleur doon xeex ak autorité yi ak autorité entreprise bi dañ leen war a orienté feneen que ñu ne leen ñu toog ñoo def plus de contrat ñoom si euh, loi bi d'après loi bi ak code du travail c'est automatiquement un embauchement si on arrête leur contrat certains on fait huit ans à la à la à la à la poste certains sont des chefs de secteur le réseau est planté est planqué à l'intérieur il y a des bureaux qui n'ont plus d'effectifs loolu yëpp dañ ko war a xoolaat ñu joxe ak toogaat ak autorité yi ba pare delloo chercher des sénégalais qui ont besoin des des jeunes diplômés qui ont besoin d' emploi et qu'il va falloir trouver des solutions looloo tax ñu taxaw si. tey jii président Diomaye naka la mën a sauver la poste parce que poste bari na ay jafe-jafe. waaw bëri na ay jafe-jafe président Diomaye avant muy toog sax ñu ngi doon sax jafe-jafe yooyu jafe-jafe yooyu ñëw fekk mais nag l'état c'est la continuité. ñoom ak gouvernement bu bees yi ñoo été ñoo hérité de ces de ces problèmes ñun tamit en tant que partenaires sociaux ak tous les acteurs du groupe La Poste et partenaires yooyu yëpp état bu fi sukkandiku rek sukkandiku def boo liggéeyee sa xalaat ci génn pour que état bi am volonté résoudre problème parce que c'est c'est c'est boo xam ne ni mu représenté au Sénégal c'est plus de trois cent et quelques bureaux et agences à travers le Sénégal amul benn structure bu ko gën a représentatif au niveau du pays ba pare muy nécessité euh, un personnel de plus de quatre mille employés si tu si tu si dans les projets dans les perspectives mm-hmm. pour redresser l'entreprise il y a une réduction des emplois mais employé boo koy toogloo tamit da nga koy orienté da nga koy accompagné il y a des code du travail dafa am na mu wax parce que nit ñàkk liggéeyam dafa metti mhm. mais boo ko demee boo koy toogloo da nga koy accompagner assister ko ba pare orienté waat ko feneen loolu lañuy ñuy kaas. léegi léegi est-ce que est-ce que poste euh, ak difficulté yi ñu ngi fay salaire yi normalement wala. waaw ñu ngi fay salaire bien vrai que ne xaw na yeex par exemple mois bi ñu fi tëddi c'est semaine. ku daan fayeeku le vingt cinq dem l vingt cinq daan teel a fayeeku di dem ba au delà des normes yi normes yi ñu ngi code du travail wax mais sant yàlla ñu ngi jot salaire yi bien vrai que am na ay avantages sociaux yoo xam ne amatuñ ko mais économiquement man en tant que partenaire je peux comprendre mais tous les travailleurs ne peuvent ne pourront pas comprendre mais les salaires ça arrive bien vrai que s'il y a eu des retards ñu ngi sant yàlla. en tant que membre PASTEF euh, déjà euh, naka gisee euh, politique bu bees bi nga xam ne autorités yi teg nañ ko jëm ci wàllum foncier bi di jur coow lu bari ak aussi si wàllum napp gi ban analyse nga si. waaw en tant que membre kii bi nga wax aussi en tant que sénégalais dañuy rafetlu autorités yi leen tàmbalee di leen accompagner nag parce autorité doo ko fal Sall rek toog foog ne moom day par baguette magique ça règle tous les problèmes sénégalais bi ñuy fan le nouveau régime am nañu yaakaar ci nouveau régime et il va falloir que ñu accompagner leen par rapport ak foncier bi nga wax c'est un problème bu yàgg bu latent mais je je am naa yaakaar que les autorités vont trouver avec l'appui des sénégalais et des services compétents euh, ce qui est nécessaire pour, pour résoudre les problèmes si bu ñu mënul dindi problème yëpp problème foncier yëpp day am Sénégal parce que comme ni ñu ko gisee à Mbour 4 li am Mbour 4 doy na waar mais nag am nañ yaakaar ne nañ trouvé solution li am Mbour 4 am na fi man mii waxaa yow Tëngéej laa dëkk mais Tëngéej y a trop de problème de foncier mais am nañ yaakaar service yi ak ta ak sénégalais yi moom lébu laa xam naa secteur pêche bi mais y a trop de problème trop de problème te dañuy rafetlu li li si état bi intervenir dañuy rafetlu tamit li si am mesures yi ñu ci bëgg a jël tamit parce que il faut ñu réorganiser waat ko par rapport au navire de pêche par rapport a licences de pêche ak yooyu yëpp ba pare les secteurs les acteurs yi nekk ci secteur pêche bi tamit ñu xoolaat seen taxawaay ak municipalité yi ni ñi nga xam ne fa lañ ne par exemple boo jëlee lu mel ni pémee acteurs yi rek doo leen bàyyi ñu gérer secteur pêche bi il faut que municipalité bi les mairies communes maires ville yëpp dañ ci am seen compte ñoom ñooy les représentants de l' état dafa doon secteur boo xam ne il va falloir ñu réorganiser ko ñu xoolaat ko ba pare sur le plan économique ñu jox leen jumtukaay yi nga xam ne dinañ ko préserver suñu secteur boobu c'est un secteur économique boo xam ne si très important et non seulement ça nécessite ça emploie beaucoup de jeunes sénégalais c'est des perspectives d'emploi c'est des perspectives économiques il va falloir que ñu réorganiser ko mu war a tegu. ñu gis ni fan yi dañu nemmeeku internet dafa yokk internet bi yokk na li nga xamante ni moom mooy wàllu courant bi en tout cas consommateurs yi ñoo commencé di ko euh, seetlu ci nguuru jomaay gi naka gisee mbir moomu au lieu que jomaay toog mbir yi wàññeeku mais dañu gis yokkute ci secteur yu bari. waaw yokkute de moom waru fi woon am hmm. jomaay fi mu yegsee yokkute warul am benn secteur li surtout lu jëm si secteur communication mooy comme bi nga connexion dafa waroon dafa waroon ça doit être gratuit ça doit être gratuit yaa yaa bon service bi koy yor ministère bi koy yor ministre communication service bu mag di nekk Sénégal am na ñeneen service yuy liggéey ci ci la connexion ci télécommunication mais dafa am loo xam ne ñun xam nañ ne parce que xool nañ li xew feneen xam nañ li xew feneen déglu nañ li xew feneen te jàng nañ li xew feneen la connexion mm. eh, eh, a été gratuite au Sénégal. si sama xalaat war na mën a yegg foofu les les services annexes nag ñoom mën nañ jël les relais pour pour des profits si je dis service annexe boo boo fournir la connexion tout ce qui vient après sur la connexion loolu c'est ça c'est payant c'est payant c'est ça se passe dans tous les pays développés corruption au Sénégal c'est cher et je suis entièrement d'accord ak ñi koy kaas ñi koy wax te il va falloir que état bi les nouvelles autorités jël ci mesures nga xam ne ça va permettre au Sénégalais d'accéder à l'internet d'accéder aux services des télécommunications mais à moindre coût et c'est possible aussi mm-hmm. lanceur d'alerte yi euh, loo ci xalaat euh, le fait que ñuy dénoncer yenn mbir yi te te duñ ci feeñ est-ce que jàpp nga ni idée boobu baax na waaw wala déet on lancé la lettre fépp la am comme les services de renseignement comme les services compétents yi nga xam ne autorités yi wala entreprise soxla nañ ko mais il va falloir que ñu organiser ko ba pare c'est pas lu alerte bi yëpp ngay jël en au sérieux wala bon ñi ñi ñi informer ak ñi alerte ñi ñi jox les informations xam nañ comment réagir comment prendre les informations ou l'alerte au sérieux mais dañ koy rafetlu ba pare organiser ko ba pare jël li nga xam ne ne lanceur d'alerte ñu ngi koy joxe ñu positiver ko par rapport aux besoins de la population te loolu c'est possible cest à mu siit ne président wax na ko <coughs> te ka jàppale mais président moo gën a xam ne moom xam na y a des services yoo xam ne quelle soit l'information quelle soit alerte bi mu jot tamit il va falloir ñu xool ko ba pare balaa ñuy réagir ñoom xam nañ ko mais dañ koy rafet ça se passe pas soit ah. am na information yoo xam ne il faut lancer d'alerte jox la ko pour nga gëstu a a nga tontu suñuy laaj ñuy fàttali ni yow yaay secrétaire euh, général bu syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste jërëjëf Gorgui Yacine Boye nga bokk aussi euh, ci Pastef foofule ca Rufisque Ouest le